Seex Mustafa santal dayob cante yaa fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa hal fil wara man sakka anna al Mustafa warisan qadima wilayatan dommu di baay من سك أن المصطفى ورث القديم ولاية دم دباي فالمصطفى ورث القديم بفضله وبجوده وسجاعه دم دباي فالمصطفى ورث القديم بنوره wa jamaalihi wa jalaalihi dommo di baay fal mustafa warisal qadiima bi sirrihi wa bi ilmihi wa bi ilmihi dommo di baay فزتم بكون المصطفى قد جاركم قد زاركم ما أعليه يا أعلى غاي ينواك جو ku baax war ngeen a kañ ngir Mustafa ub lambi Mbàkke ja waa wallaay yaa ahla ñaaqeen ñaaquleen Seex Mustafa ñaaqat ni leen bi kalaamihi doom moo di baay yaa ahla ñaaqeen ñaaquleen Seex Mustafa ñaaxaat na leen bi kalaamihi doom moo di baay Jurbel bu leen jërëfal ndaxam Seex Mustafa ñaagaat na leen bi kalaamihi soga ñaagi ngaay yaa ahla baa kul bakku leen ngir Mustafa bigalaat na leen bi kalaamihi am ngeen na daarum yam nu ma aabi ku fa mënta dem na siyaare ñaaxin mbaate ngaay yaa ahmadu nu muhammadin li muhammadin yawmal qiyaamati sant leen sunu waaji waay seex mustafa yaa neexa àndal dal nga wammat nga fi yegguloon jébbal sa baay wammat nga gumba yi boot la fañ yi tegal jigéen yaa leen di jox ay canga ay ku daw nga dab ku fay nga fay li doonu fay mboolem jirim yeeg baayu yi yaay seeni baay yaa nuy teral yaa nuy yërëm dinu may dërëm yaa nuy defal yaay jenn waay yaa yor tera ngay mag ña Bamba yoraale moo tax yilif nga ba jàll saalum jàll xaay yaa ak waa bawal yaa yoru sagub buur fi daa dem lamba ay wammat nganaar wammat wolof kenn réeratul yaay tiitaru bu baadoole yeeg ñi fi sant njaay yaa mustafa abnul mustafa nul mustafa yawmal qiyaamati rangaleenu fa ay midaay miskin ya daa jooy sey xibam ma ci wam sasin ferloo nga seen rankooñ ya yaa matlaq waay mag jàqatul ndaw tiitatul réew mépp bég ngir moslukat yi mosal nga leen yaa fi sabaay yaa tee ñagu bu ko bandehoo yaay jën wuréy yaa tee murit seen mbar yaa boole doom ñépp yaa boole dongay boole bokku yépp yor yal nang fi def ndañ jaamu dundal faw waay taalub muriid yaa ko fay maa lay xambal sabtaal sew nit du نحن المجتبان المجتبان يوم القيامة بوللين تسين قاي موسى كلام الله مون مصطفى wàññil juróom fukki julli mënu lépp jotaay Muusa kami mooy lapp tool mi le Mustafa yaa moom jumaa jeeg xarnu beek ñi gëmun sa baay gaaluk murit yi yaa ko yor bambay masin may am parante bi dëkkalal sa masin doraay nuurun wilaayati muy masin ba wa wustoo fuqutur rijaala murit yi yaay seen wéeruwaay sagleer a jol li fi nun baleeral waa tugal moo tax balaa bey wàcc njur bel naa la kaay sag leer a tax nuy xor-xoral tey xoy-xoyal samsul fawqa leer ab leer ay Cheikh santal dayab cant yaa fi amul ku lay werante te ka nga yoo